asalaamaaleykum boo xeexoo lamb asalaamaaleykum Gora Sam Ndiaye production seen doomu ndey organe bu faru jaar moo leen nuyu andi leen suñu lamb samedi 1er décembre 2018 gros titre ni la demee ah ñu ne à Dakar ce samedi Balla Gaye 2 avec un nouveau un Amadou Jean mooy wax ah, ancien de Massène mu ne c'est business il doit prendre bala Gaye 2 suñu lamb door ah 2018 première édition Dóor Dóoraat reçoit son trophée ce samedi entrée de Tyson Yékini Aziz et Gasson la lourde mission ah de de Big Four au CNG. bu ñu fa jógee dañuy ñëw si troisième page troisième page fenêtre comme suñu lamb nu mu koy defee saa su nekk ñu ne suñu lamb door ah. Eumeu Sène moom Eumeu Sène nee dina ñëwaat ah, dina ñëw fe fekkee li nga xamante ni nga xam moom la def waa dóor dóoraat Bécaye Mbaye tamit nee moom promettre na dina def teew Ipo Ngaar ak Ibou Ndiaye ñoxo baaya ah, nee door ah, bi ah ñu moom mooy ki nga xamante ni ndax mi ngi fële sa Espagne di xam nga di di saison bi ñu ne parcelle mbooloo ñoom commencé nañ seen entraînement ñoom écrit parcelle mbooloo euh, ñoom Franc ñoo fa ñoom ñoom farbu jara champion yooyu ñoom ëbbali ñoom tàmbali nañ li nga ñoom oninga seen entraînement waaw la demee ñu ne lutteur pikine yi ah xaar pour li nga xamante ni moo cimetière pour li nga xamante ñu ah dina ñax yi noonu ah, am na si solo ñu ne Blaise Blaise Silla ah, mooy remercier li nga xamante moo di Blaise Silva mooy remercier waa suñu ah, mooy remercier waa suñu lamb li nga xamante ni suñu lamb door bi nga xam ne jox nañ ko waa jagleel nañ ko waa écrit dóor dóoraat ñu ne Baye Ndiaye ah ñu ne nga xam ne mooy alburax taxawal combat bu mag bi dox si diggante ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers 2 ak ki ñu ne moom est que dina réussir li nga ñu ne contre Modou Lo et Boy Gaye 2 ak ki nga xamante ne moo Lac de ah, ñoom ñu ngi war nañ def lépp li ngi li am nañ ko seen combat bi nga xam ne moom lañ jëm ngi war a bëri a bëri ki nga xamante wi di Boy Niang ne ñoom ñaar ñëpp ah, ngi jëm ci li nga xam ne bu décisif la pour seen carrière gars dañuy tëb jalgat lamb comme ni ñu koy defee saa su ne ñëw ci li nga xamante ne moo ma leen ko waxoon ci ah, moom mooy ancien coach ki nga xamante moo di Eumeu Sène ah mooy wax nee na lamb business la ah, lamb business la kon Eumeu Sène warta mën a bañ ki nga xamante ni moo di Euh, Balla Gaye 2 ah comme ni ba tey ci titre ah, suñu lambu door bi ah, suñu lambu door bi ah, ñoom waa dóor dóoraat ñoom waa dóor dóoraat ñi nga xamante ni bi ñu leen di defal dañuy ñëw ci bi dañuy jël ah dañuy jël oto ah bu ñu amee xaalis ah bu ñu amee xaalis ñuy jël li nga xam ne avion wàcc fan dëkk ki nga xamante ni di Adama Barrow muy Gambie ñu ne Gambie seen ouverture saison lañ nekk ah seen ouverture saison ñu ne Double Tyson moo war a bëri ak ki moo di saay-saay ah, fële sa Gambie lay amee ah incha allahu rabi samedi bii la ah, am na ay combat préliminaire yu am solo yu nekk ci biir ah la demee gars yi du ma sori ah damay dellu ci biir Dakar jëm fan dugub biir collectif des lutteurs ñu ne collectif des lutteurs jii ah suba ah, moo di sixième page amateur lutte simple yi ginnaaw nee nañ bi nga xamante ne Matar Ba ak dinañ daje def réunion tey suba incha allahu rabi ñoom amateur lutte simple bu ma fa damay ñëw ci li nga xamante ni moo di septième page bi septième page comme ni ma leen ko waxoon ci titre yi ah ñu ne ak Yékini ak Aziz ak Gasson dugg nañ biir CNG bi ah ñu ñooñu nga ay kàngamu lamb ci biir CNG bi ah noonu la demee ñu ne dinañ ñu ngi leen di xaar pour ñu apporter li nga xamante moo di nouvelle énergie énergie bu bees tàq ci biir CNG bi ah ba pare nag ah taxawal li nga xamante ni moo di dëgg ah ci biir CNG bi ba pare défendre lutteurs yi défendre mbër yi ak li nga xamante ni moo di promoteurs yi éviter tamit ah, ba nga bañ nekk rek man bu CNG laa bokku bon fala laa bokk ah du ma taxawal dëgg duma du ma wax du ma def dara nee ñu moytu loolu noonu ah ñu ne contribution contribution ah, suñu la moo def contribution ñu leen CNG nouveau reconduit son oncle son oncle ah ba tey comme ni ma la ko waxoon ci titre rek du ma fa jugee du mu fa jugee kan ci kan la ñuy wax ah le lion de Guédiawaye le roi de la bali ah muy kan Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 ah ñu ne bala Gaye 2 samedi tey la war a dugg si fii ci Sénégal ah égali préparation am diggante combat mook Modou xarañ Lo ñu ne Balla Gaye 2 ah tey lay débarqué fi nga xamante moo di Sénégal ak lan lug gis ko noona ah. mu tent bopp bi mu moom Balla Gaye 2 gars damay ñëw ci huitième page ah huitième page bi comme ni ma la ko waxee ah huitième page bi tey kan souvenir Capa Thioli ah, ah noonu la demee ngeen gis ko noonu ci photo yi muy tuus noonu ah souvenir bu yàgg ah des années 2011 ah noonu moo di jalgati lamb jalgati lamb ah tey kan moo fa nekk ah, ñi xew la tey ñoo fa nekk xewle muy ñan waa dóor dóoraat ah doom parcelles yi ñoo xewle ngeen gis ko noona ah, si suñu lamb ci photo yi ngeen gis ko ah, suñu lamb door jos yore ko garga nekk si watam lëngu ko ah ngeen gis ko ñuy bëggee noona ah, jos mooy wax mu ne lambaat sos soosaat dóor dóoraat ah garga di ko tontu ko jos lii lépp yaa liggéey moo tax ñu gagné suñu lamb door bi gars di leen jaajëfal seen doomu nday organe far bu jot mu ne indi suñu lamb